mbokki ami fidèle téléspectateur ah Thiès Média ak RTT TV nañu mbégte ak contentement bu baax a baax bu ngeen gisee fii ñu nekk rek nga xam ne ñu ngi koñu bàcc mbaw ah muy waajal bis bu am solo journée Sidi Diakhaté le 13 novembre dox ci diggante ak ki nga xam ne mooy cere càq muy bis am solo mais gis koñam ni boo gisee xam ne ñu waajal bis muy bis am solo ci carrière di grand combat war am fële ci hippodrome Ndiaw Macodou mais bu ngeen xoolee suñu wet gis ngeen ki nga ne mooy Bathie Mbow di grand champion mi ngi na leen toog waaye également gis ngeen ku mel ni vie moom itam mi ngi toog tey Modou Fall la ñu àndal ñëw war a waxtaan ak bi nan lay waajal le ñu dem ci te ñëw aja jërë ngeen jëf mbokk yi ah gis ngeen comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek ci commencement bi ki ñu toogal mooy Bathie Mbow di grand champion jëm ci bis bu am solo le 13 novembre fële ca hippodrome Ndiaw ma koddu combat bu am solo dox ci digganteem ak ki nga xam ne mooy cere càq war a jóge fële nga xam ne mooy taaxi kaw di bis boo xam ne tey ji mu naan la amateur lamb yëpp dañ koy xaar parce que bis la boo xam ni boo ca diggee dinga nga làmb mais di nga mandi également li nga xam ne mooy ambiance parce que bis bi moo toll noonu ñaari champion lañ boole di nuyu également ki nga xam ne mooy promoteur bi ah di Sidi Diakhaté production mais bala ñoo sori rek dañuy bàyyi champion bi muy Bathie Mbow Bathie nuyu nañ la. waaw maa lay fay bu baax alhamdulilahi rabbil alamin ban sant yàlla julli ci yeneen bi ñu ngi sant ñaari waajur di la di di rafetlu carrément émission bi ndax yàgg nga ko bëgg yàgg naa ko bëgg. Mm-hmm. kon tey la alhamdulilah rabbil alamin ngeen champion bi noonu la nuyoo muy bàcc mbaw mais également di nuyu ki nga xam ne mooy grand vieux Diallo di coach seulement di nuyu ñi xam ne ñu ngi teew ci jotaay bi yëpp mais nga xam ne ñoom lañ fekk si koñ bi parce que boo xoolee ni ñu taxawee rek ak ni ñu taxawoo bàcc mbaw nga xam ne bis bi am na fu mu leen toll bis bi ñor na leen bàcc mbaw nga jëm ci bis bu am solo le 13 mars euh, novembre sa diggante cere càq ñu gis wàccaay bi ñëw ci bunt kër gi xale yi fees fi car allah mag ñi fees si loolu lan lay def ci yow waaw Kara ku xool lii xam ne lii sas la ndaxte émission bi amaana sax waxuma ko kenn ku dul Vieux Diallo mi ak Bouba ndax ñoom mënuñoo ñàkk ma waxoon leen émission bi pour man boo ñëwee xam nga danga may posé ay quelques questions rek ma tontu. Mhm. nga dem far yàlla dogalee ko ni mhm. kon lii sas la daal. Mhm. waaw aw seen fay. damay ñaan yàlla mi dara taw rek le treize ma indi fi ndam li comme ni ñu koy yëngale ñu yëngalee nu ko raw ci kàttanu koo gis ci làmb man nañu depuis le treize mars le treize mars la woon sa diggante ak fils de Samba Diaw Bathie Mbow amaat ko mbaax combat mobilisation bi gën a yokk xale yëpp génn nga dégg sànq xale yi ci seen biir waaye ñu naan Bathie bul ma jooyloo loolu boo koy dégg lan lay defaat ci yow. non moom ku ko dégg kuy sportif képp ku mu ko woyal nga xam ni lu garaaw lay def ci yow. nga jógee ci bis bu am solo le treize. waaw nga ni combat boobu ni mu demee woon moo taxoon. waaw Kara comme li may wax rek. Mhm. xëy na bañ ci jógee boo léegi ñu ngi suñuy entraînement. Mhm. mais ñun dañuy sabab rek yàlla mooy dogal. Mhm. xëy na yàlla lii la namm tey ñu bërewaat ci kàttanu yàlla ci weer wi. di ñaan yàlla mi dara tëw rek mu may ñu ci ndam. Mhm. ñu ci ci ñu ngi ci yëpp nag. Mhm. foo xalaatul rek ñu ngi koy préparer pour am ndam. Mhm. waaw loolu daal la ñu ñu daan gis Bathie Mbow daana préparer ay combat mais combat bi ni Bathie da cee gën a sérieux adversaire bi la wala Bathie ci lim jóge la. non ci li a jógee yokk na loolu aussi ak quartier bi. nee naa la làmb ji làmbi quartier la. Mhm. du làmb ju may ñëw xam nga pour cere càq rek. déedéet. Mhm. dañu ñëw pour liggéey ak yeneen i adversaire cere càq moo ci gën a ndaw. te Kara bëgguma sax di sori sama diggante cere càq. ndax moo lan moo rek noo xam nga lu tax. non cere càq làmb tëre di rek. mais bu làmb jaaran fa mu war a jaar du ma dajeeg moom heure bi bokkuñu sax maanaam. maa ngi moom récréation moo ñu war a boole. mais cere nag boobu ba léegi def na fi ay prof brevet ak ndaaraan parce que mën na ni cere càq depuis première combat am la a ñàkk Thiès digganteem ak Soxor Kale. man bu ma ko tegoon fi ma ko war a teg maa ngi moom du ñu bëri heure bii laa lay wax. yow yaa waaj saw yoon daal. non xam nga loolu sax yow yow mi may laaj sax xam nga loolu bu baax. Mm-hmm. bu ma ko tegoon fi ma ko war a teg maa ngi moom du ñu bokkuñu sax catégorie. Mm-hmm. na ni mu demee la aussi tamit dama lay nangul loolu nga wax. ci mm-hmm. moom mu def ay preuve ñu tànn juróomi xale jël ko ci. loolu moo waral lii mais du leneen. ah du moom rek moo doonoon suwaa bi kon. non non du moom rek ëpp doon nañ cinq xëy na comme moom la ñu dëgmal rek du ñu lim kaat ñi ndax koo ci lim mu ne Bathie Mbow soxla na ma te nekk ci préparation combat. Mhm. kon ñooñu dañ leen di stand by. Mhm. ñaan nañu yàlla sax. xam nga le treize am ndam pour mën a dem ca kaw. mais yeneen kaat yi des ñoo ñoo ñoo bañoon wala yow yaa choisir cere caak. maanaam déedéet yeneen ca kaat yi des. Mhm. xëy na Sidi moom la ci gën a taamu moom la ci gën a déggoon. Mhm. mu yombalal ko comme ni ma ko yombalee combat bi taxaw looloo tax. Mhm. mais njort naa ni kaat yooyu sax koo ci seeti woon mu bëri ak man. waaw ndax kenn bañu la bëri ak bàcc mbaw. waaw bàcc mbaw ku ko xam ci làmb gis bu bu ñëwee ci làmb day indi état car macha allah indi ambiance. mais bu ñëwee ñaari ci biir bëreem lay juume bàcc mbaw loolu lan la. waaw loolu loolu xam nga lu munul ñàkk daal ndax boo xoolee Kara amul benn doomu aadama buy préparé ànd ak say mbokk ñëw léeg-léeg te doo juum yàlla yor ndam xanaa dañ koy ñaan ndam le mais sama entraîneur ngi nii toog vie. lu ci ëpp bu ñuy dem ak bu ñuy ñëw ak lu muy munti def dernier vocalam ci man mooy toujours del sàmm sa suuf. te del jàpp di wure kon loolu à chaque fois rek ni nga ma koy bàyyiloo xel mooy ci li may juume te ci kattanu yàlla dinañ ci bàyyi xel bu baax bii du am incha allah. Mhm. del jàpp ci suuf di wuree mel ni adversaire bi ngeen di bëreel da ngeen ko étudier bu baax a baax parce que gis nañ ne mbër la moo xam ne heure buy bëre ak yow day contrôler li muy def bu baax a baax te làmb yëpp ci suuf am lay lay ci ëpp ci ay combat kon mel ni combat bi yéen a koy jàng bu baax a baax. moom moom seetaanuñ sax ay combat am étudier wuñ ko seetaanuñ ay combat am. mais est na. non wóor na. man Vieux Diallo mii di sama entraîneur li ma digal su ma ko defee xajuma ci kaw cere càq jarul sax ma koy étudier maanaam man bu ma waree ñëw jàpp bëre rek jaar fi ma war a jaar jarul ma koy étudier moom kay mooy toog du tranquille ci bàcc mbaw mais bu dee bëre rek jàppante xalaat bokkuñu ci sax. waaw yow yaa mu gën a xam loolu. ñu gis sa dernier combat ñu dikk nga gis ci tuus ñu gis ci ambiance boo xam ne macha allah nga indi ay tama indi lépp est-ce que mën nañ koo dinañ répété lu loolu sax ci kàttanu yàlla. Mhm. ndax euh, bés bee ko laaj bés bi grand combat la grand combat bi surtout borom lay tolloon. Mhm. te aussi di santaale sam papa di Diakhaté bu baax ndax moo waral lii lépp. Mhm. dañuy ambiance ba ambiance fi dara néew nee naa la Balla Gaye 2 Boy Niang sax du dàq journée bi sa diggante cere caax. waru ko dàq ñun ñoo war a ñun combat de l'année combat bii la treize la war a doon. waaw dëkk bi yëpp d'accord nañ ni ñaari junne ngeen ñaari bërekat ngeen ne moom. moo tax ñu war a bëree. combat bi nga war a ko bëree mun nañ ni yow yaa recevoir nga war a ko bëree ko hippodrome Diaw ma kodd mu gën laa jege ci côté mobilisation côté boobu noonu bàcc mbaaw fan la ci toll. non di woo ñëpp képp kuy doomu cees rek ñu ngi lay ñaan Diaw ma kodd la treize ci kàttanu yàlla treize heures stade war naa fees dell di wax nag non violence ndax cere càq sama adversaire la waaye sama rakk làmb ñu boole ñun ñaar ñëpp ay doomi cees lañ ndam li mënul génn Thiès xanaa damooy ñaan yàlla mi dara tëw rek mooy ni ko quartier Sëñ Ablaye Guy Sombel loolu laay ñaan yàlla mi dara tëw muy lu am solo mun nañ di bii mooy sa premier grand combat hippodrome Ndiaw Macodou de. su ma jiw waaw mhm. Ndiaw Macodou bi ma fay mujj. Mhm. laay goote Ousmane Gandigal ñoo bëre. ma mhm. bëre ak Mama Diaw Mama Diaw waaw Mama Diaw. Mhm, combat bu nu mu demee woon. man maa ko daan. Mhm, bàcc mën nañoo xam ba xam mi ngi si ñaata combat ak ñaata victoire. moment bi presque mën naa ni mën naa maa ngi ci dix combats. dix combats dix waaw. Mm, parce que ñu bari dañoo xaw a uppale carrière Bathie Mbow. Mm-hmm. parce que ñu bari xay na mun na la Bathie ay combats am day xaw a sore. Mm-hmm. mais parce que mën nañu ko bëreeg ay Boy Jaxa ay combats mais bëreeg ndaanaan yooyu yëpp tey jii nii xëy na bu ne lee làmb ba laajte ci làmb mu ne ni sa gë sa gëjë la bëre moom moo koy waral. Mm-hmm. waaw sama gëjë làmb sama gëjë bëre ci lamb sax. moo waral tey ma bëreek euh, Boy Jaxaw daan ko bëreek Mama Jaw daan ko wëlbatiku di jël Alaaji Gaynde mhm. loolu maanaam bi ma koy def am na ñu bañoon ci sama staff ñoom ñii duñ ma bàyyi ma fenn mhm. mais booba maa ngi maa ngi booba am naa problème mu adversaire mhm. ndax man mën naa ni mbëri Cees yi maa ci gën a neex a wutal adversaire du ma gàntal kenn képp kuy def ay preuve dama koy jël moo tax bi ma jóge woon ci booy Jaxaw jóge ci Mama sii Sidi amoon lu mu ma waxoon ne ma ñiy bëre grand combat bi ci kàttanu yàlla bu kii daanee wala kii masanil ma jox la ko deful loolu loolu moo tax bi àllaa jigeen ne defee ay preuve ma jël ko ak gëj a bëre mais bu fekkoon juge naa ci ñaar ñooñu ak samay ndam continuer di bëre kon amaana du ma bëre ak ñooñu kon li ma la wax rek sànq ci laay dikkaat kon cere càq dañuy bokk école rek récréation moo ñuy boole mais duñu mus a bokk classe. Mhm. voilà. Mhm. ci côté préparation bi période bi fan nga ci toll ci làmb joo xam ne mun nañ leen li ci des xëy na bu matee ay huit jours yooyu noonu ci lay yem. bu doonoon suba la six dañuy bëri ji. Mhm. sama entraîneur a ngi nii après xam naa di nga waxtaan ak moom ci loolu mhm, bu doonoon suba le 6 mhm. nii nii nii rek bu ñu demoon léegi dem njaw ma koodu dañuy dem bëri ji ci kàttanu yàlla mhm. waaw ragaluñu loolu mel ni mel ni combat bi nii bàcc mbow mën na ni ñu bëri bu ñu xoolee état de bi dañ naan bàcc mbow da cee wàññeeku wala contact bu bëri moom moo ko waral non xam nga xam nga làmb làmb combat bu ci nekk ak ni nga koy préparé te maak cerey càq doon na combat boo xamante nii ñëpp nee na ñaar ñi suñu jàppantee dañoo war a mën a naaw mhm. maa ngi ko gis mu am yu mu jël maa gën a xam fa muy jaayee am naa lu ma ko jënde waaw yaakaar <laughs> yow xam nga loolu nga ni am na lu mu naan est du fa mu nekkoon moo neex rek fu mu ne woon maa ngi moo bokkoon fenn fu ñu nekk ah gars yi nee daa génnoon de non demul fenn soriwul fenn Burtani <laughs> ah. gii la génn def fa sax dix jours ñi waa <laughs> lamb ji avorté mu toog fii jël ay affaire am naan su ma ko defoon maa ko yëpp doole foofu ndax bokkuñ non nee na xelam moo dal ci làmb ji de. waaw ah, baax na ba jour si rek incha allah bëgg naaw ak moom. Hmm. moo tax mat physique lu bari wàññi poids pour mën koo jàpp ñu def lu garaaw incha allah. Hmm. Hmm. ci côté mobilisation bi ñi lay jàppale ci bis bi lan nga leen di wax. non sant yàlla santaat yàlla sax ndaxte man awma lu dul quartier guy Sondar rawatina quartier Ablaye Yaxin. ndax euh, ñiy sonn ci bàcc mbaw bari na ñiy jàppale bàcc mbaw bari na xëy na nag léeg-léeg da ngay toog. xel fattu ci yenn émission yi. mais ndeysaan ni ngay da ngay bëgg sant même xale yu ndaw yi sax dama leen di bëgg a sant. ndax xam nga nii aw ma seen fay damay ñaan yàlla mu def leen ay mag ëllëg. waaw di sant sama grand bu baax ñu naan ko Moussa Diagne. di sant sama gars yi Jimbori Gaye Moussa Fall Kulim da ngay juum Sakri. Abdou Gaye mii. du Makka xam nga. ñoom Dame Thiaw ak ñëpp Kulim da ngay juum. rawatina Ahmed Diagne mii ak sama grand bi Bouba. amul benn jour boo xam muy taw muy naaj lu ti xew mi ngi ci sama wet. Mhm. kon kii aw ma fayam. bàcc mbaw nag bàcc mbaw ñëpp la. mairie koñ bii aw ma seen fay. yàlla xam na ni Kara am am na ñoo xamante nii dañ may seen may dox di dem sax ñu ne ma ndax yow laa seetaanoon télé bi yàlla na yàlla may ndam te loolu rek. Mhm. ku la ko defal amoo fayam. Mhm. maa ngi sant waa koñ bi yëpp. di sant maire yi képp ku fi yeewoo. ci mbaw muy xale muy mag ku munti doon mi ngi sàkku ci yow ñaan pour le treize yàlla may ñu ndam. waaw di sant waa dekkal lambu cees di ji jiital ci cant gi Bada Dione. père Bada Dione ñu ngi koy nuyu au <laughs> waaw maa ngi leen sant bu baax. ndax mhm. awma seen fay. mamoor borom Touba. Mamor ku lim da ngay jum père mhm. Ananas. Mhm. Matar sama waay la. ak sama grand boo xamante ni Mbaye Diallo borom aw ma fayam day sonn ci bàcc mbaw mention spéciale Jabel day moom it macha allah day sonn ci samay mbir ak Pape saw Habib Diallo nag damay ñaan yàlla mi dara tawut mu fayal ko boppam. ndaxte tànkam lu ma benn yoon. Habib Diallo waaw. dafa mel ni moom la moom ñi ñu tuddee ci bis bi ci la bokk. dani ma bee yu Sidi Diakhaté indi indil moo ko ma jënd lépp may ko supporter ñu dem nga daan ñu ci kàttanu yàlla. mais loolu dina garaaw de ngeen bokk koñ yéen ñaar ñu tuddee kon kooku wax dëgg yàlla bu lay defal loolu mi ngi lay encouragé ci li ngay def. mu ngi la ciy jàppale bu baaxa a baax a baax a baax. di sant tukkulóor yi ma may soxna yi. bu ma nee yaa ci loog Awa rek wax dëgg yàlla tënk naa lépp. bu woo sama nijaay sëñ Saliou Modou Wade. waa pàkk ba ñoom Aziz. Ibou Lawbe Kaaw théâtre bi may doog a débuté. danaan war mbaam di ma fekk ma ñaa sumaare booba kenn mënu maa jàpp ci àddina. boobu bu ma la nuyoo sax nga ni bàcc mbaw lu ma def muy war mbaam bi Ama Baldé ak euh, fëgala indee yeew bi waaw ci la ñu tere loolu mais kaaw aw ma fayam maa ngi koy woo moom it mu ñëw jàpp ci bësku bu baax mhm. sama waa famille bii nag aw ma seen fay ñi ma bokkal ndey ak baay ku lim da ngay juum boo nee Ndondy rek. moom maasale nga lépp ak ay sel ak seex. Moodu bàyyiwuma kenn. ñoom ñëpp xam nga maam jaara fàllu bàyyiwuma kenn ndax dañuy sonn ci man ak sama jarbaat yii. kii dañ koy indil premier cadeau war koo maye. ma bég ci lool te xolal garaaw loolu daf maa daf may gën a kii. Ah. waaw mais loolu dina loolu garaaw de. ñu indi ko première kàddu nga war a bëre. mais mais loolu baa du métti métti ci cere ja. tax mu jooy ne nañ ko puus. mais kon la dimanche treize day duñ bàyyi dara. lépp mhm. la ñuy def mais bés bee tax. Mhm. te bés bi nag du bés bu ndaw. comme Sidi Diakhaté woote moom ku tëgg ku nekk da ngay ñàkk. Mhm. loolu laa ko wax de bu puus ko ba décembre. mais mais combat bi dama gis Bathie Mbow di ci dégager confiance bu bu bu garaaw a garaaw. am ndaxte ay nit munuñu munuñu ñëw di sonn ci yow di la jàppale boo même bu ma gaañu woon sax wala dara maar day taali mhm. war naa ko nëbb ba bëre ji ba pare mhm. su ma demoon ñu dóor ma ma def ma dara war naa koo nëbb gérer ko ba bés bi ja ndax bés bee ko laaj fi ne nii maar day taali bu ma dara daloon dama koy nëbb ñi may àndal ba bëri ji ba pare ci kàttanu yàlla loolu laa décidé ndax bu ay nit di sonn ci yow il faut que tamit xam nga nga nga nga leen di may confiance saa su te man sax combat bii ma jël waru ma cee toog du ma ne la wala ma ci confiance warul ne lu tax maa ko njëkk a bëre jiitu ko ci lamb fop fi ma jaar jaaru xëy na ni mu demee nii la rek da nga wax bi amin yaa kon kooku waruma koo jël di am benn pression waaw juróom nag ma fayam su ma demee entraînement su ñu waree def dix su ma yemee sept wala huit mu ma da ngay dem ba ci des kooku amoo fayam waaw di ma jël di ma yóbbu fu ne moo ma yee chaque fajar kon kooku amoo amoo fayam il faut que ma sant ko muy sama rakk ju ma déggal nag moo daan numéro deux waaw baa fóore nag moom moom moo res yëpp moom. baaxoo voilà muy noonu. <laughs> waaw gis nga noonu la demee di nuyu grand Amadou Diouf bu baax a baax di nuyu waa Dekki làmb googu rek parce que ñu baax fa nekk mooy ki nga xam ne mooy Bada Dione boobu noonu ak ñeneen ñi fa nekk ñëpp ku ñu limu rek xam nga suñu xel a ji mais xam naa comme que ni nga waxee sànq rek da ngay ku mel ni coach bi mu sànni ci ay kàddu. waaw bu ma bu ma santee Samba Lobé ba pare ak Baba Galle. Baba Galle. waaw ak ak <laughs> di ko nuyu moom itam sama copain Baba Galle. ak waa Raay Boña. <laughs> mais ala chaque bu waa côté bi amee combat mais taxawaay bi la ak yéene ji mi am ci moom des fois ñu xuloo moom sax mais comprendre nañ ko dañuy xam ne bis bi moo ko waral rek Kara mm-hmm. maa ngi lay bëggee ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant mboolem ñu ñu fekk fii ci koñ bi di wax ne tey def nga émission bu ñu neex ñëw nga fekk ñu fi ñu dëkk ñëw seet si ñu kon dañ ciy kontaan bu baax di sant yàlla bu baax nag ngeen waaw Kara man euh, li may liggéey dama koo xam ba noppi dama koo miin ndax dama bëre ba bàyyi bëre kon war naa mën a préparer mbër xool état de physique xam nan laa koy préparer bàcc mi li ma ko teg fi mu toll nii mënaguma koo wane damay xaar ba le treize incha allah yàlla may ñu ndam bala quatorze ma dugal ko ci réseaux sociaux yi ñëpp gis ko waaye li ma ko teg ak li mu daj ci combat bi ndam rek moo tax ñu liggéey loolu te incha allah suñu borom dinañu ko defal. waaw mën naa ne am na mbër yoo xam ne daan nañ ñëw ci man ma leen waajal ku ci mel ni jinjeer man maa ko préparé ku ko gis keroog ci jour boobu xam ne indi na état bu normal yàlla nag mooy séddale te kenn du xëccoog moom te lépp lu mu la jox lu ne daa gën waaye dañuy ñaan le treize bii ci kàttanu yàlla bàcc mii ma waajal def ci fulla ak fayda def ci ngor gu mat sëkk boo ma xoolee man sax xam ne damaa daj ay coono. di ñaane lépp bëre cere caaku ko waral waaw non non non bis du ñu déranger ñun benn yoon adversaire tamit du ñu dépassé dafa fekk ni boo amee ay jafe-jafe yoo jóge ci làmb boo jëlaatee beneen bis dafa am beneen taxawaay booy taxaw rek. dafa am avant pendant ak après waaw te caméra yi bu la tiimee nga bëgg a wax say yof amaana dina la lalal ndëgg sërëx waaye lu ci mënti xew daal ba mën cee xew mooy que ni. ah dina neex de. kon daal gis si àdduna dafa am bataille psychologique. instant bi waaw xale bu jigéen sax boo ko dee seet mu leeral na ni yow maa ko yaa ëpp doole sax di ngay sax sa xel. voilà noonu la demee. <laughs> kon du problème mu doole ju bari sax doole ju bari amut. doole ju bari amut parce que yàlla bindul nit ku nga xamante ni dafa distingué. nit ku nga xamante ni ñëpp dañ waaw. nit ku nga xamante ni moo mën ñëpp amul mais yenn saa yi di nga am yëg-yëg ci sa bopp ak confiance ci sa bopp parce que li nga liggéey moo tax voilà ak fi nit ñi teg ak li nga war a def parce que nit boo xamee li nga war a def rek amaana doo juum moom xam na li ko war si làmb ji ma sàmba du ko ko wax ma demb du ko ko wax bu làmb boolee xam na bu leen làmb boolewul tamit aussi xam na te làmb sax nag amaana moo leen boole bu leen boolewul woon du bëree adversaire bu mag ak bu ndaw amut parce que mbër yëpp ñaari tànk lañ ak ñaari loxo di ne ñu leen di jàppale comme niñ koy jàppalee kon lenn kese moo fa am muy concentration bëre ñaan yàlla may la ndam nga ñibbisi ñu nekk sa ginnaaw ñëpp jàpp si parce que tamit doo lay ndox la de. waaw <laughs> booba léegi ngeen jóg gis muy préparé nan bi instant waaw gis-gis bi moom gis-gis bi moom mun naa bañ a sori parce que bu delloo mbatt ca ndaala rek day am la mu amoon. bu delloo ca ndaala. waaw day am la mu amoon. Mhm. tojal ñu ko ah, boo déggu <laughs> ah soo déggee ñu ne la bu delloo mbatt ca ndaala day am am la mu amoon. mooy bu defee lam daan def day am lam daan am. restaurant mhm. yaakaar nga ni ah, rafet nañ ci njott de. Mm. waaw. <laughs> mais cere caax. waaw mbër rek comme mbër di bëre. mbër la waaw seetaan nañ ko mu bëre. xam nañ si moom lu bari sax barki maam jaaro Buso mm-hmm. xam nañ si moom lu baree baree baree baree bari. te da ngeen koy tere caax bu suur baa dina xam ne ah, laalo bari na de. nee na cere caax la laalam amul de. non ñu wut laalo guy waaw. déggoo ma de wax laa lay wax de ñun guy sombe lan dëkk bu amul laala ñox ñu wut laala guy mais ba jour ba. mais dafa mel ni bis bi tey bàcc de mobilisation bi dafa a garaawaat. non bis bi sax. par rapport ak bi njëkk daan na mobiliser mais tey jii dama gis ni koñam dañ koo koo jàppale. nga maam loo gis si àdduna rek soo ko defee ba pare dañ si amaat beneen jàngat ëllëg boo koy def da ngay changé loo def si àdduna soo koy defaat dañ ci am expérience boo amul woon waaw. loolu moo waral lii nag. waaw. lan dama leen a xamal ni leen le tamit ku ñëwul ca heure ba ah di nga taxaw ci ginnaaw te doo gis jël bi. déedéet barki maam jaara bu so. da a duy stade ba dañuy duy stade bi ba mu fees ndam li nag ñun dagaan ko sunu borom te amaana buñ ko ko dagaanee tamit ah fi ñu ko ko war a dagaanee booba dinañu ko may de. loolu kese la. Ah. waaw. waaw ñi ngi salaamaaleykum ñi ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di jox kenn ku nekk sa wàccuwaay Kara yow tamit ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la jox sa jaatu sa wàccuwaay bu baax a baax macha allah ngeen jëm ci bis allah ñu ngi jub bis boo xamante ni bis bu mag la bis bu nu soxal la bis boo xamante ni xam na lim ci bëgg ak lim ciy xaar lépp mais balay boobu rek ñu profité ci benn affaire boo xamante ni sànq ba tey maa ngi dégg nga koy tugg tudd muy problème mobilisation bi nga xamante ni moom lañ def fii daanaka gisoo fi kenn fii parce que. ak gisagoo fi kenn fii fans club bi ñëwagul maanaam staff bi rek kenn kenn dajeegu fi nii nii parce que bàcc xam na làmb ji li ko ciy fekk bu baax ba tax na bi mu xamee boppam daanaka moo nu gën a xam boppam moo tax lu ci bari dafa ànd ak nëbb parce que lépp dañ ko daan def muy muy feeñ bu gis baax bu ñu ñëwee du ñu gis résultat bi ñu bëgg te bàcc ni muy bëree ku ne xam na ni bari na lu mu daanu te nit mosu koo daan mbër mosu koo daan mooy daan boppam. mooy bëre ba daan boppam. non bàcc moom mooy daan boppam ba daan boppam bëre ba daan boppam. non dama ni mooy daan boppam. làmb bi mu mës a seetaan ci moom yëpp bu weesoo buloo amul benn mbër bu war ci kaw bàcc boo xam da ngaa bëre moom daan ko. te loolu da ngeen ko bëgg a rectifier. loolu moom xam na ko li tax ñun ñuy sant suñu adversaire mooy cere caax leen doom moo tax ñu koy sant muy defaat na bàcc mbër ndax bàcc fi mu toll nii xam na moom mooy kan instant bi nii bu ko kenn waxul li mu war a bëre su demee xam na ko te boo ñëwee fii tey gis bàcc ni mu toogee ni muy waxee ak yow ak ni nga xamante ni koñ bi noonu la ñu tekkee war nga xam ni bàcc mi am na lu muy xaar ci bis bi ak am na fu nga ko jëmee vraiment ñun looloo tax ñu ni tekk ànd ak noppi mais ñi ngi gërëmaat nag fan si club bu baax a baax a baax gis nañ seen taxawaay chaque instant ñu ngi def ay réunion di waajal bis bi di préparer loo xamante ni bu ñu koy indee njaw ma ñépp dina dinañ kontaan bàcc nag li may wax saasu ne nee na nu gën a xam boppam du mbëru koñ mais mbërum réew la parce que gis nga li mu toll nii ci làmb am ay jafe-jafe bu ko fi ñenn mbër yi defoon du ñu am grand combat kon bàcc nit ku ñuy taxawu la nit ku am mbooloo la nit ku am ay taxawu la du Habib Diallo dong du Moussa Diagne dong du keneen ak keneen guy sombeel ak artiste Ablaye gépp ñu jàppale bàcc moom. Thiès bépp ñooy jàppale bàcc sax laa mën a wax di profité nag di woowaale ñi nga xam ne ñooy jàppale bàcc ñëpp mooy 11 ASC yi nga xam ne ñoo nekk zone 5A ñëpp ñu ngi jàppale bàcc mbaw ASC bu mu ci mën a doon di jiital suñu président wu di ko woo tamit ci suñu bis bi parce que ñun amuñu lu dul ñi nga xamante ne ñoo dëkk ak ñun ak ñoo ñuy jàppale vraiment bàcc bu santé secteur bi bàyyi bee xëy na dafa fàtte rek mais ñëpp ñooy jàppale bàcc te li ñuy waajal cere jàpp mooy dajaloo ni nu war a dajaloo waajal li nu war a waaj bu ñëwee bàcc indi li mu daan indi bu njëkk la mu daan mbapate mu indil ñu ko ci cere jaax sànq nag dégg naa ko mu ni warul bëreeg cere jaax di tiit ndax wax na dëgg